nag tey nag dama kontaan parce que lu tax ma kontaan tey non lii lii no man li ma jàng lépp lépp lépp lépp mosuma xam ndar mooy Saint-Louis gars yi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va grand. waaw euh, laa doon fa. Pétain Zeti laa maa ngi nii. yow la oui. yow yaay borom numéro téléphone bi 77. vingt 327.

ngeen di bëgg vacciné wu rek vous vacciné la liste bi may vaccin fayta yow vaccin. fayta vacciner. la ami vacciné Idrissa Seck président vaccin. vacciné wu pour ñun ñu <laughs> dañuy vacciné wu oui ci yow doon xaar yow dama liste bi pas, ñëw yow laa njëkk bind ah. yàlla ah. yàlla yow laa njëkk bind sama gaañ nga. xaaral dama ne lii daal laa wax. ah yàlla big la wala lan la. ban big. lii daal la Fatick eh? yàlla. lii lan la. booy lii vaccin bi la dama. vaccin wu lan. booy bon pare naa dama la bëgg a defar. waaw ah, vaccin sa bopp ba pare mu xool xoolal. xoolal wuy ma café wu ma yooy lu leer naa lay wax ay vaccin yi ni man café wu ma ko doon wax naa la ma lay wax nag booy vaccin nga dama lay wax dama lay wax yow fan nga jëlee vaccin yi waaw booy vaccin yi nag tamit maa ko créé lii maa ko defar kan vaccin yi ndox bi gis nga lii ba ma koy vacciné original ndox ndox bi sax maa ko créé xam nga comme ndoxu piqûre la luy dugg man li ngay wax ni yëpp waxuma ko fan nga jëlee vaccin yi sama sama tey président ba mu toogee corona sonal nit yi pendant des années noon nag activité amatul dara amatul waaw xaaral ma wax la ba mais il faut nga lu jaar jaaru vaccin fu mu jógee ba ñu toogee amatuñu idée amatuñu dara si laa toogee quatre heures du matin quatre di naan ataaya idée idée bi ñëw sama xel ma créé ko def commande bi si laa defee commande bi gars yi indil ma carton bi carton bi yëpp moom la ok damay commencé vaccin dèjà ki may njëkk vacciné mu ngi tudd Fayta. Fay Fayta dama koy vacciné Tamba la dëkk Fayta Tamba. waaw waaw ma vacciné jabaram Ami. Ami waaw waaw ma vacciné jabaram. ko su ma jugee foofu ma ñëw ci nguur gi. comme bay si sa réewu tànk ndox bi ba mu ñëwee ñoom ñoo njëkk raxasu vaccin bi ñëw na dama leen di njëkk vacciné. commencé ci président. waaw par benn benn. su ma leen vacciné ba pare. ma commencé vacciner samay copains. kan man moom génn ma ci man moom wax moom dès maintenant daal. xanaa du ma sa gaay man vacciné wu waaw vacciné wu ma gaay noo ma loolu moom la koy wax rek mu leer quoi. léegi xoolal xaaral ma essayé ko ci yow nga xool. kan xaaral déggoo boo koy essayé essayé ko sa bopp yi ngay def nii sax dafa wóorul tëjal lii yi ngay def nii si bopp moo wóorul man maa vacciné wul. booy xanaa doo léegi moo xool benn affaire. xanaa doo citoyen moderne et responsable. bon si si si aussi citoyen moderne et responsable aussi. ça ne veut pas dire que ne damay vacciné est ce que xam nga comme indi na vaccin yi pour nit ñi vacciné wu. waaw tey ngaa bàyyi ma piis la ko. baax na merci bàyyi ma ñuus la ko. baax na merci ñuus ko sa bopp. Eh, xam nga man ñaata ñaata ñaata vaccin laa de yow seize vaccin. yow. un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ñëwaat ba fii ba seize vacciné wu naa seize fois lii daf may permettre tey su may dem tugal su may dem tugal. Mhm. su may voyagé di dem tugal. waaw léegi xanaa dootoo voyagé. kan la yow. Ah, booy voyagé balaa ngaa voyagé dañ lay vacciné de. lan va yow bàyyi ñu vacciné la rek comme ñoom d'accord nañu vacciné wu ba pare kay bàyyi ñu vacciné wu. non mais nee na lii moo ko fiy jëlee feebar bi. non man moom vacciné wu ma quoi. vacciné wu ma parce yi dafa wóorul. vaccin yi man li ma ciy dégg moo tax. waaw lan nga si dégg. vaccin yi dégg naa dégg naa dégg naa ñu ni vaccin yi bu ñu la vacciné. maanaam su fekkoon danga waroon am njaboot gu ay dix doom yooyu noonu limité nañ ko am nga ay trois doom ngay am wala ñaar. trois doom waaw loolu du ma ko signé. amaguma jabar bay signé loolu. man man à peu près à peu près à peu près. man yow seize seize vaccin yi nga def nag. kon eh? yow jeexal nga yow dootoo am. doom waaw jeexal nga def. loolu la ñu wax. ah non loolu vaccin bi gars defar. imagine bu dee seize vaccin nga yow bu dee seize vaccin. waaw te man seize benn vaccin bi bu dee da nga a am dix dañ koy wàññi trois ngay am. trois doom. waaw booy trois doom baax na booy. non non yow seize nga def seize vaccin nga def vaccin bu nekk dafay wàññi. day wàññi doom yi lay wàññi. waaw. non booy imaginer. jeexal nga yow jeexal nga yow. moom dem non xaaral xaaral damay imaginer doom yi ma waroon am. waaw doomu jour international. waaw doomu. basketteur basketteur international. doomu rugby international. rugby da ngay am doomu rugby. waaw doomu volleyball international. volleyball waaw. doomu tennis international. yëpp niil na. ñëppay niil. ñëppay niil mais samay vaccin c'est spécial. vaccin bi bi sama vaccin la parce que maa ko créé lii soo gisee ma créé ko pour vacciner yenn Sénégalais dara seen xel la bii vaccin bu patin defar la bu patin créé léegi la ma ko livré booy bi ma koy livré indil te booy bi lu ma gën a jaaxal jaaxal jaaxal booy bi écouteur la ma ko indilee te lu ma gën a jaaxal booy bi booy bi mu ngi jógee ba New York. dafa dawal ba fii mais booy bi jàmbaar la moo tax may naa ko un million mu ñibbiwaat. ñu yor ko waaw boobu ba Dakar da koo dawal. ak scooter loolu man ma fii laa man pédalé naa fii vélo ba Allemagne festival Allemagne bi paate ba Allemagne ba ma eggee dara dalu ma ni ni après daal xam naa daal même def naa nii. ay deux jours trois yoo xam ne noonu nga kii. waaw waaw parce que dama amoon problème mu. si si moom kay moom mënut a ñàkk. ah waaw comme deewoo rek si weng rek nga sax. waaw xam weng. léegi léegi léegi nag. affaire baa ngi léegi yow lii nii xam nga lu ma lay digal. waaw non dama lay wax. dama lay jox boo eggee sa gaale. kan nga commencé. du dugg sama kër. du dugg sama gaale. déedéet yow kay commencé sa waa gaale. kan sama gaale sa bi romb a muy caayaan ci biir de. doo ko ah. mu essayé moom mooy vacciné boppam 한국 한 달라 bu dee vaccin yi moom mën na ko jël na ko jëlal boppam tey dañoo tegoon benn 4 millions ah mhm. léegi bañ tegee 4 millions yi dañoo ne ku nekk da ngay vacciner seen kër kenn léegi nag man wax dëgg yàlla tànn ma kenn ci kër gi parce que comme kër gi maay avenir bi ma ne ma ne léegi xaaral ma jël la yow ma vacciné la léegi 4 millions yi bu duggee ci kër gi boo si deewaalee cinq cent mille yi mun nañ mun naa la si dëjël jënd si nag xam nga léegi mun naa commencé waaw léegi mën naa xool lii ba pare ah mën naa xool lii ba pare waaye pour yow la pour yow la. parce que dinaa la nit turaa la. nekk ñëpp xam nga lan la. waaw xamoo lii de. lii vaccin la dañ ma ko livré. waaw dañ la ko livré mais vaccin bi. dafa am feebar bu muy faj. bii waaw feebar. maanaam sa yaram bu fekkee dafa am suukar bu bari pour vaccin bi. kon lii vaccin jabet la. alhamdulilah. waa ji daal juum waxuma ko bu jabet. yàlla ñëw na. bii pour loolu la. ah pour jabet la. waaw mais ku amul jabet nga bëgg ko pikiir lii da ngay faagaagal ba kenam kooku musiba la. ah ok ok c'est bon. d'accord merci Galaat. jërëjëf ok très bien. yow kon ay vaccin. <laughs> man grand bi. xanaa xamoo su ma ko mënoon tayle dama koy tayle. kan kii su ma amoon téléphone techno benn téléphone benn marque rek dama koy tayle jël ko jël. <laughs> ataaya rek ataaya rek la fi nekk kii boo ko taylee daa garaaw ah waxal dëgg imaginer la kii xam nga lan laay def fan yi ah. ah, damay jël loxo bi yóbbu ko ci maketu Colobane dugal ko dugal ko pour ut benn pour dara mun naa ko ah, dugal ut grand frère beneen dama koy dugal ut ci benn ordinateur dugal sa grand ut ordinateur yow nit nga wax de moom ngay dugal sa grand frère. sama grand bi waaw. xanaa xamul loolu ñeme naa ko yóbbu ko dugal ko. naa ko neex ne ko kañ kañ kolobaan bu ñu demee ba kolobaan. ma jàpp ko naan ni dama koy dugal dama koy dugal dama koy dugal léegi mun naa daje kenn mu am wërsëg ma dugal ko. dama ko war a dugal ci téléphone. parce que sama téléphone bi daa toj. dama koy dugal rek ut téléphone. te doo yow léegi mooy loolu yow des fois mooy loolu comme que yow yaay fal ay kii. ni nga koy waxatee président États-Unis non man sama téléphone sama téléphone bi ma soxla boobu yàqu maa ngi koy defar xam nga ziga yi. 4 ah, millions yi nii nii xanaa amoo ci xaalis. kan ah. Ah, xam nga yi xam nga sa téléphone di toj. xam nga yii ñaata yii ñaata laa dépensé ci xaalis. waaw milliards. yaraax yëpp grand yow yëpp mën nañ si dund. yaraax dund si mu def mille milliards du lu ndaw de. ba pare nga téléphone. kon kan. yu tay ma problème mu téléphone. ah yow waxoon dama ne sama téléphone boobu dafa am ay affaires yi ci nekk. moo tax bugguma ko changé jox naa ko réparateur bi mais lu ma jaaxal réparateur bi sama benn copain. Ah. ay téléphone lay defar Baba Diop. waaye lenn kese moo ma jaaxal moom boo ko joxee écran. Ah. bu ko bu la ko tegalee. écran bi sooy bind huit neuf ay ñëw. neuf ay dafa taat téléphone moom moo ko daan garaaw. ah taat bi daal la mëne taat bi la mëne loolu moom mun na ko ay na si trop ay na léegi léegi amul problème comme ñu ma xam ñu jabet bari na waaw léegi may leen ko baa ma dugal kon yow bu ñu doon vacciné nii ngay bàyyi yaa ilaha illallah ah man man laa dul vacciné man maa dul vacciné man keroog ba may voyagé booy ba ma demee hôpital ñu ne ma non dañ lay testé xool ndax feebar bi dalu la mbaa loolu ñu ma piqué du vaccin bi mais mais ci peru bët lañ ma ko piqué ci peru ci peru bët wala ñu ma ko piqué loolu du vaccin bi ah moom la ne ah ok léegi xaaral ma dugal lii lii xaaral ma dugal ko ci néeg bi ah xaaral ma ñëw dégg bu dem na gaañ la ah. ma fiy fekk mu naan ay fii